mbokk internautes yi dal leen ak jàmm Khalifa Sall ak Barthélemy Diaz mbir ma ma ngay gën a njagas ci seen diggante ginnaaw Barthélemy Diaz ba mu daal di fësalee ne dafay daal di posté candidature am ci élection mairie yi nga xam ne dañu daal di jëm mu bëgg mairie bu Ndakaaru nag ñu daal di ko koy jox toog di ko laaj nëbbu ci dara moom Khalifa Sall nga xamante ni nag moo nekkoon maire bu Dakar ginnaaw nag coowal caisse d'avance bu mairie bu Dakar bi nga xam ne tuddoon nañu ko ci mujjutoon te tëdd Khalifa Sall fu mu toll nii yoon tënk ko mënatul nekk nag président de la république fii maanaam mënatul bokk nag ci euh, candidat yi élection présidentielle rawatina élection locale ndax nag euh, moom ci boppam nag ci liñ ko jiñoon ci euh, mbirum nag caisse d'avance bu mairie bu Ndakaaru moo tax nag lépp lu jëm ci wàllum poste nag rawatina nomination fii ci institution yi ci état bu Sénégal nag dañ ko koy daal di bañal ndax dañoo jàpp ne dafa luubaloon alal joo xamante ni moomu ko lu ci mën ci doon nag fu nii na ab ñagas-ñagas bu am ci digganteem ak naataangoom bi nga xam ne mooy Barthélémy Dias nga xam ne bokkoon na ci ñu ko eh, mu nekkee ca prison ba ñoom ñaar ñi bokkoon nañu ay combat yu bëri yoo xam dañ ko doon daal di nag bokk waaye nag fu mu toll nii moom Barthélémy Dias keroog ba muy daal di annoncé candidature am eh, ci élection maire yi rawatina nag ci mairie bu Ndakaaru gisuñu fa fa Sall tey eh, gisuñu ko fa ëllëg te itam Khalifa Sall bi ko ay nit interrogé ci loolee li mu daal di xam ne mooy ne nag moom désigné wul kenn ngir mu daal di nekk a candidat bu parti socialiste ci mairie bu Ndakaaru ndax nak loolee du moom moo ko war a def ndax taxaw Dakar nekkul moom kese moo fa nekk te itam képp kuy candidat boo xam ne dañ la war a daal di désigner nag ñoom seen plateforme boobee ko war a waxtaanee rawatina ñeneen ñu fexe ci opposition bi itam wax nañ ko daal di nag waxtaanee ci seen biir rawatina jamono ji ñuy wax ne benn coalition lañ bëgg a daal di taxawal ñoom M2D ak yeneen i membres yu nekkee ci opposition lu ci mel ni waa Front de Résistance Nationale di FRN donc amul na kenn koo xam ne am nga sañ-sañu ne da ngay taxaw ne da ngay annoncé candidature comme ni ko Barthélémy Dias daal di naka defee te ko dégg muy am ay coow ci mbirum candidature kii que ce soit ci biir mairie bu Ndakaaru boobu mu mel ni nag ab tontu la daal di nag servir ki nga xamante di ko bëgg a xamal ni ko nag nekk man maay choisir ba noppi nag duma si wax moom Barthélémy Dias itam nit yi ba nu ko a ci lan moo tax mu bëgg annoncé annoncé candidature am te Khalifa Sall naka waxtaanu ci ak moom rawatina nag ne yëgalu ko ko sax a benn yoon moom la mu daal di xamle mooy ne rek ambition ci wàllum politique moom daf ko yàgg am te itam du xaar avalu kenn pour bëgg a daal di naka fësal candidature am ci mairie bu Dakar rawatina ci jamono ne ki nga koy wax noonu sax muy Khalifa Sall nekk na koo xamante il n'est plus éligible aux yeux de la loi maanaam ci wàllum loi fi ci yoon moom mënatul nekk candidat ci benn élection bu mu mën ci doon